asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu inna waliyallah wa ma tawfiqiya illa billah barke borom Tuubaa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi a saaxibul fadila cheikh muhammadinil muntaqa di ko ñaanal yàlla yàlla tëbbu ko kàttan tëbbu ko kàttan ba mbooleem naalim naal ak mbébét yi mbébét ngir liggéeyal maamam ju baax ja mu amee ci lu kawe njotam ñu koy ñaanale noonu Cheikh Mahamadul Bachiru am tañang Mbakke yàlla tëbb ko kàttan tabb ko kàttan ba mboolem naal yim naal ak bébét yim bébét ngir liggéeyal waajuram bu baax wa borom daarul moxti mu amee ci lu kawe njotam sëriñ baay Cheikh yow tamit ñoo ngi lay nuyu di la gannaaw loolu ñu bëgg a waxtaane safar gi ak ku baax ki ku bax ci nak mene su ko xam waye ñu wax ci luñ mëna a rek inshallah allah di ñaan daje ci ñimbalam serigne Baye Cheikh safar de awer la wo xamne ne su ñewé xel yépp dem ci serigne bi ndax ci la gennon dem liggéeyal yalla ak bi sallallahu alayhi wa sallam nena kharajtu yawma sabti saamin asar li xidmatil muxtaari fii sahri safar bu doonutoon tukem bi l'islam day fay ndax ci mom la yàlla yeesale l'islam jaddid bi al islam nijzi bil ulum annaafiaati ya ya ya khabir ya alim mu wax ne ku bëgg mucc na ñëw ci man amarani rabbi bi an usarriha bi annani mulaasin wa ximan wa mafsaw faman arada al khaira fi kilti daarayni falyarus nga xamne kon tukki bi mënutoon a ñak waykat ba nee na safar bi ñëw na te mooy weeru ngëneel ak yiw ci weer wii lañ amee luy tax nit ku baax duñu naw maanaam sëriñ bi day koo xam ne bëgg ko day dolli ab xol bëgg yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ko day sori nit ki yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te sëriñ tubaa nee na xol yi texe yëpp ko sopp moo tax bu soppul sëriñ tubaa kooku am naa fekk la ab saay saay la bu bon a bon سرين توبا نينا خولي يتخي يب بكو قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب المصلحوا موي كو خامني ام يومل نينا نينا دنيا تشونو يمتي متي دوغا ام غرم لو صاح داك لو دوتو توخو نبهتكم عن على كد بدا لي خبلا ان ارى ردا مؤبدا waaw muy ko xamne limu am yombul neena dañ na coono metti metti métti am gërëm lu sax ak lo xamne ne dootul tuxu nabbaxtuku maan ala kaddin badaa léegi xam la an araadi dan mu ab badaa itam du joom du fàtte neena itam mustama yalla ci bakar bu ndaw waxuma la gu lam asu wala ansa wala ansi taala billam te kenen ku dul serigne touba mas ngaa yalla te kenen ku dul serigne touba la mas ngaa mooy nañ bayyi sisu bi te xam ne lépp Serigne Touba la xam ne yow war a bàyyi siis bi sëñ bi te xam ne bu dul ko nag Serigne Touba góor yàlla yëpp taatineen la ñuy def taatee nag taatee nag mooy la doon sàkku ci yàlla ba am ko te muy ngërëmul yàlla ba Serigne Touba tax bu ñu ko amutoon gàcce gu raw taatineen la ñuy def maanaam si nañ wàññi coow mu ne ku wax a ñaf sanday a doon fii lu ba di ko tiitaroo mu yëngu sëriñ Tuubaa la coow li tax xam ne lépp sëriñ Tuubaa la bu ñu ko sëriñ Tuubaa góor gu langale du yëmbale borom Tuubaa moo tee góor nga tële borom Tuubaa moo tax ba góor ña joŋ doon ay góor ba seen Tuubaa ya Bàmba moo koy ñor kon nañ wàññi coow li tax xam ne lépp Sëriñ Tuubaa la waaw nañ wàññi xam ne lépp Sëriñ Tuubaa la wallaahi lépp Sëriñ Tuubaa la kon suñu Baay Seex maa ngi tuub bu baax a baax bu ko defee ñu ñëw ci màggal bi waaw màggal gi moom mi ngi tàmbali ci jamonoy sëriñ bi radiyallahu anhu ku ñuy wax Serigne Mawlaay Busa radiyallahu anhu la ko njëkk digal ba jamonoy tay jii ñu koy def dañ laan ko def ci jamono ci jamonoy sëriñ bi kenn ku nekk fa nga ne Cheikh Mouhamadou Fadal radiyallahu Cheikh Mouhamadou Fadal radiyallahu anhu moo ko woote ci dëkk bii di Touba yàlla nañu ko yàlla fayal Serigne Touba wax na ne àjjana amul bis waaye saa yu bisu màggal bi ñëwee dana fa ràññeeku bañ xàmmee ko Serigne Touba nee na ñaara ngi nii dend kii fonk màggal gi kii fonk dana feeñ ca kata fonko ba kaka fonko ñak mo tax sëñ Moussa Ka di wax ne bu ton tukkeem bi wolof nasaran te kon billahi ñepp dem niiraan màggal nag ñu koy defé moy tanzimuhu bis sunnati magal ko ci sunna jang alquran ak qasida sëriñ bi ak berne ak ñaan ak yaatal ganni waaw wa magal non lañ koy defé surtout yaatal gan dañ yaatal ganni ci lepp ganni buñ magal see nak haramal lali waaw ak néeg yi maanaam jumtukaay yooyu ñuy connecté bu amee ci kër yi sax buñu ci def wifi waaw jumtukaay yooyu ñuy connecté bu amee ci kër yi buñu ci def wifi te jumaa ji itam buñ ca dem di xat-xatloo di xat-xatloo gan yi ndax loolu ko naa def nañ yaatal gan ñi ci lépp bu dee ñun ñu dëkk ñun ñu dëkk ci dëkk bi nañ yaatal gan ñi ci lépp waaw bu màggal gi jàll bu dee dañuy siyaare ñu doog a dem ci jumaa ji siyaare waaw kon sëñ Baye sax xam naa yooyu bu baax a baax xam naa luñ ci dolli rek mën a ko ku nekk xam ne ne fi ne màggal gi ñëw na ndax ndax tey la première safar waaw tawaykat ba nee na safar la suñ jëng bi jaam dajji ko ci lu wér bu doonu toon tukki Serigne Touba bi tus du fi jar fépp fu waay nekk France ak Fuuta fépp ci yem wuy si Serigne bu mag bi ci bis bi doon na bor bu la war kon Serigne Cheikh ñoo ngi sant bu baax ci dalal bi di ñaanal al khalifatul am xataa iful muridiya al cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na fi yag lool te wér diko ñaanale nonu Serigne Bassirou antagnang mami tamit itamit na fi yag lool te wér kon di len jox dig deje rek ba beneen yon inshallah allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin